salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki sénégalais yi nuyu naa leen di leen siyaar euh, te di leen bëggee seen mbokk la Medoune Diop Watawasaw Bil Haq euh, Kelvin ziar naa la bu baax a baax di la ñaanal jàmm ngeen partagé mu yaatu partagé ci soxla bokk waa mbokk sénégalais yi sunu président bi nga xam ni mooy Macky Sall yeen fal ko xawma lu ci mënta demee mais en tout cas daal mooy président mu neex ñu mu naqari ñu seen président yeen sax nga dolli ko ci ndax seen dëkk boobu safuma ndax merde gi fa nekk léegi dama déglu waxam bi discours bu Macky Sall dafa am ay njàngat yoo xam ni mula laa ci am euh, muy lan man sénégalais mudik ma dëkk sénégal mu neex ma sénégalais laa mu naqari ma sénégalais mais njit discours discours bi mu def da ki war a xam li mu wax lan la si ne ah sama président am de wax na lii ci youtube bi laa ko jàpp li ma njëkk a jot mooy français jàngat bi ma ci am Macky Sall xam naa ni déggu may français waaye xam naa ni dégg nga france ni ñu koy prolonger moom macha allah ak taxawaay ba 25 minutes laa ci déglu 25 minutes moom xam naa ni yooyu yëpp nga toog làkki français eh, boo ca dollee olof moom da sonn ndax da taxaw ngay sonn kon après kon xanaa da ngay toog wala 25 minutes yëpp xaw ndax am na wolof wala amul wolof mais man sa wax ji mënuma ci comprendre dara déggu tubaab nag waaye Sénégal moom ku fa nekk di am ay baat yu ndaw a ndaw yoo xam di ko sàcc dégg naa nga ne guerre mondiale xaw ma ban guerre mondiale de waaye Sénégal ñun guerre mondiale fekkuma fi judduma booba judduma jamonoy guerre mondiale waaye ci jamono yi nga xam ne fekke naa lii Sénégal li mu am ni moo raw guerre mondiale ci problème ci mar ci mbënd ci dëkk ba tasaaroo man Sénégal laa nekk ba ni ma nekkee mag soo ko ñëw bitim réew waaye ñàkk jàmm gi am Sénégal mësu fa am lu mel nii ci sa nguur loolu benn ñaareel ba mooy maa ngi dégg nga naan Covid xaw ma lan wallaahi ci tolof tolof yu ñu dund Sénégal tëjaate moo gën a metti foofu si ñun ay Covid téeméeri junn yoon ñun li ñu am malaat bi nu am moo gën a dee malaatu Covid laa la wax ku wax dëgg ñu tëj journaliste boo xam ni ab dossier ñëw wala benn affaire nga def ci say càmbar wax ci dëgg ne ah lii de lii moo am dossier baa ngi ne ñu ne ràpp ci kaso ba journaliste boo xam ni booy fen journaliste fenkat yépp am na jàmm bépp journaliste bu la dàq fen dàq la tappale gën la mën a génne fen sunu dëkk bii di Sénégal de journaliste boobee moom am nga fa place danga wax ca télé bu ne da génn fu ne fu la neex duggal wax mais journaliste bu wax dëgg ñu noq la yóbbu la ca kaso ba lii gis nañ ko ci suñu dëkk tamit avocat bu jub dof dof li jéem a jub naan da ngay jéem a atte naan atte lu yoon ak loolu surtout lu laal ci makeek waa këram tey nga dee de ca kaso ba danañ la diaboliser danañ lëkk kii danañ la kii gendarmerie ba nag mooy ka nga xam ne moo ki nu mu tuddati sax kii waajooju moom da ngeen ko dàq moom ba mu ñëwee ci ji dossier Sonko yi mu ñëw naan ay di ciy jéem jubal ak di jéem ak ko yow xaaral ñu yi demal bay, mu dem bay bay ba sax ñu koy gàllankoor soxna sa nag soxna sa ne man di jigéen laa jigéen ju baax man de duma seede mukk ay fen bëgg a jiiñ nit njaaloo nii ngeen nekk ko ci dëkk bi nar ko def man de duma ko seede gis ngeen soxna dañ ko duma de ne ko sam ne ko tëjal ne ko tëjal sa làmmiñ fii boo bëggee doxle dëkk bii da ngay fen gouvernement bu mel nii daal gis naa ko fi lu mel nii daal doon na loo xam ne lu ma gis ci réew mi la léegi nag comme seen sa discours yooyu ngay def nit pour conseil bi ma lay jox maanaam jiite woo ay tubaab ñi nga dégg ci dëkk bi ñi nga jiite ñëpp danoo mel ni sama classe bi mel ni man jànguñ ngay waxal wala yi ngay waxal ndax ñi ma dégg ñëpp nag ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñii xam nga ni bëgg nañ réew mi ñi nga xam ne bëgg nañ lu leer da ngeen ne lëndëmtu nim tan da ngeen ne lëndëm maanaam seeni biir dara leeru ñi nga xam ne bëgg nañ yor réew mi bu ñuy wax ak nit ñi dañuy wax lu leer te ñun dañoo bëgg lu leer seen dëkk bi lépp lëndëm bu ngeen ñuy wax saa ngeen wax ñu ay olof yu ñu mën a dégg wala yow xaal puraan nga nga làkk ne dëkk bandum euh, alpulaar sax expliqué ñu ko waaye du pulaar boo làkk du wolof boo làkk du mbandanke boo làkk lenn loo làkk ay làkkum tubaab nga ñu yoo xam ne ñun dégguñu ci dara dara dara loolu loolu du nit boo jiitee li ëpp li nga jiite ci askan wi kon xaajal sax discours bi nga def xaaj bi wolof nga def xaaj bi français ndax ñi ma gis ñëpp kat wax dëgg yàlla gone yi ma gis yëpp ñi nga xam ni maanaam bëgg nañ réew mi bëgg ëllëgi réew mi ñu mel ni tey euh, Guy Marius Sagna dama koy gis bu demee assemblée assemblée léegi sax ngeen tàmbale di waxi wolof bu njëkk ay tubaab rek ngeen ñi làkk damay gis ay ñoom Guy Marius Sagna wolof yi leer nañ ñi la ñuy làkk loo xam ne ku ko partagé wolof bu ko dégg ku ko dégg ndax Sénégal boo xoolee wolof bi moom moo fa ëpp ñu bare ñëpp dégg wolof mun naa ne ñëpp dégg wolof wolof ni mu fa mel kenn melu ko fa ci comme ci comme làkk bi ni mu ni mu amee doole foofu maanaam da ngay xool Guy Marius moom yaakaar naa joolaa la mais bu demee assemblée da ngay gis mu dem wolof la fay làkk ñu dégg ko Ousmane sunk discours yi muy def yépp xale bu ndaw boo laaj ne ko Sonko lan la wax dala naan lii la la wax keneen ak keneen noonu yow mi nga xam ne yaay jiit nag yow loolu yaa ci waroon jiitu yu mel noonu yow yaa ci waroon ak njiit yow liñ war a ndax njiit cim réew du question xel nit maanaam xel dafa doon yàlla moo koy maye mais ab njiit li nga soxla ku lay mott ku la mottali nga war a soxla mais bu fekkee yow mi jiite amoo xel ne ah man kat ñi ma jiite nii kat ay wolof a ci ëpp naa toog ma wax leen ay olof yi leer nañ ñi ba bu ma fa jógee dinañ xam ne man njiit bi kat lii laa wax nit fii la mën a teg sa tànk mais loo jàng nii nga liiral ma ko pare man xaw ma dara ci sa discours bi de wallaahi dégg naa ci daal guerre mondiale dégg naa ci Covid xam naa Covid lu mu ci xaw ma bon gouverneur yooyu daal dégg naa dëgg yàlla euh, am njiit da ngay wax nit ñi lu leer lu mën a dégg boo defee discours ba pare ñu ne ah suñu président bi de wax dëgg waxi nit la fi wax de suñu président bi mën ci commentaire mais sa wax ji mënuma ci commentaire ñaar dërëm ñaari salaam maaleykum laa ci mënta commentaire lu dul français yi daal xaw ma dégguma xaw ma maa déggul français nag xaw ma la mais sa français yi daal neex na ma ni ma ko déggee noonu français yi jub na waaye xaw ma la nga wax jub na wala jubut xaw ma dëng na wala dëngut te it sa dëkk moo toll foo xamante ni si maanaam at mu bees ak at mu màgget ak lépp liñ la jiitee jiitewul la pour at mu bees ak at mu màgget ñu ngi la jiite pour réew mi defar muy at min génn ak at mi ni ñëw at mi ak at mi waaj ñëwaat chaque jour ñuy ñaan yàlla at di gën a kii erreur yi nekk ci réew mi ñu defaraat kook yooyu mais instant bi mu da am problème sa réew sa réew dafa am problème bu rëy rëy avocat El Hadj fenkat la dafa fen Elaas Diouf ca kaso ba la war dem fenkat la avocat Elaas Diouf dafa fenel nit ci ab avocat sol mbubbub avocat daa di jiiñ nit njaaloo rii ci làmmiñ mu nekk ca télé ya wax wax yu bari du dëgg Mamour Diallo ay nit di ko tudd euh, Antoine jon ma nga xam ne yow yaa ñu ko falaloon nga teg ko fenn Ousmane Sonko am wax ju mu wax yow dañ laa jiite te ku nu jiite nag maanaam ku jiite ba pare ñu wax la wax joo xam ni yow defet la ci yow loolu yow da ngaa war a nga setal sa bopp Macky Sall yow sa bopp da nga war a setal sa bopp ndax Sonko kat nee ka nga faloon Antoine Diome ma nga xam ni yow yaa ko faloon xaw ma procureur xaw lan lan nan ngeen koy waxee yooyu man ab kaw kaw laa jànguma tubaab waaye ñun ay ajoor ajoor lañ boo ñu wolof moom nañu mbokk seeg dugub seeg lii yàlla xam ni ken kenn mënuñu ci booy boo ab français ab langue rek la bu leen ndax sama gaay ay français moo tax intellectuel yi di leen nax yi daal jëfi intellectuel la ma gën a jox intellectuel moom ndax Cheikh Anta kat waxam jakat foofa rek laa tënku ndax xawma loo wax nag xëñ na nag mën naa jum tamit ndax seex Anta nee na gis nga la ñuy wax ensemble naan leen jésus yi làkk leen daggitu siin waa daggitu anglais daggitu ki weesuwul ni mboq mi kilo mboq maanaam uh, fukki ndërëm lay jar te jamono ji am nañ fukki kilo mboq lan bay lan génn Sénégal buñ ko jaayee weesuut loolu wax ñu ko ci wolof ajoor ajoor kaw kaw yeeg bawol bawol yi mel ni man ñu toog maanaam càmbar ko làkk ko ci juróom boo ca dollee juróom fukk la fukk boo ca dollee fukk ñaar fukk la même mathématique am na ci olof nit ñi mën nañ mathématique ci olof mën nañ kii ngeen laaj ñu ay olof yu wóor wóor olof yu leer bu dee di ngeen a jub yéen da ngeen di lëndëmtu ni mu tan bu seen dara leer fekkente ne ay sos la ñi la sosal yow Macky Sall bu fekkee lii ay sos la ñi la sosal ñooñu ay yàqkat la war a tëj ndax bu fekkente ci sos ku mel ni avocat avocat boo xam sa ngemb muy maître El ñu ne la avocat bii nga ngemb kat dafa fenal nit dossier Adji du dëgg lii du dëgg bu fekkee njiit bu jub nga bu fekkee nit koo xam ne am fekkee nit koo xam ni bëgguloo ñu teg tuuma say kaw nga wane dëggu nga jub nga maanaam da koy lijjanti di nga toog ne avocat El Hadj Diouf bii ngeen fenal bii ngeen sosal kii kat da ngeen ko fenal waxoo leen dëgg lii lii nga indi ñu lu leer teg ko ci taabal bi sa avocat bi fenkat la bi ñu tegal Sénégalais yépp lii moo nekk seen bopp war nga ñëw nga leeral ñu loolu mag Antoine Diome mii nga xamante ni si maanaam yow yaa ko kii yaa ko ngemboon nga teg ko fële Ousmane Sonko nee na du man te loolu dafa garaaw de Macky loolu accusation la war a doon bu rëy ndax defet la ci yow bu dee dëgg la jàppal ne yow warootoo toog waroo jox nit ñi discours ñu lay déglu nit ñi bu boobaa tëggum bool yi ñuy def ñoo ko yay ñoo tey te mooy yoon dun la déglu ndax bu fekkente ni Antoine Diome mii de yaa ko fal Ousmane Sonko moo ko wax de du man de nee na Antoine Diome dossier Adji Sarr ba nga xam ne dañ ko ko tuumaloon Antoine Diome moo jël dossier ba mu falsifié mu changé dossier ba luy seetal Ousmane Sonko bu def ca lu koy taqal ba pare yokk ca lii dafa garaaw de te yow yaa ko fal lu mel nim réew lu mel ni am fa loolu tuddatul réew loola ay président ak yooyu sax buñ ko tudd réew moomu nañ ko tuddee benn dëkk bu tasaaroo rek ay mbaam nekk fa ak i nag ak i gaynde gaynde ya ëpp doole bëy ya di jàpp bëy ya di lekk lii daal mooy sa réew lii mooy sa réew fu bon gouverneur bi yi nga jiite nii li nga jiite say discours maanaam amulul njariñ bu boobaa bu fekkee ndax fi mu toll nii kat dañ laa teg tuuma ci sa kaw ndax Ousmane Sonko kat dañ ko ne andi lu nekk mu teggi tuuma ne li ngeen ma wax du dëgg ay fen la teg ci ay tuuma eh, teg teggi tuuma teg yow Macky Sall bu fekkente ne yow tamit yaag say nit li nga xam ñoom Ousmane Sonko teg nañ ko ci seen kaw yi du dëgg indi leen luy teggi tuuma audio yi bu fekkee ay ojo la yoo xam ne yunu montage wala benn affaire ngeen indi ay kii ne yi ay montage la sañoo leen ñaan sañoo leen wax dëgg wax dara ñëpp xam ne lii dëgg la wax dëgg fa yàlla Macky say discours ak say lépp muy yow njiit nga yàlla borom bi jiital la ab njiit dangay ragal yàlla ak njiit danga nga war a xool bu baax sa digganteeg yàlla yow yaay responsabilité Sénégal lu fi yàq ko yow lu fi baax yow la ndax yaay njiit lu mel nii nga gis ko ci réew bi dégg ko ci réew mi yaakaar naa ne tey waroo woon nelaw fukki goneek ñeenti yàddee maa ngi ko gis ci commentaire bi ñu koy def wax nañ dëgg fukki gone dara lu dul nax ñu nekkiwuñ fi dara lu dul lëndëmal bopp askan wi ndax lii dafa leer nañ ñi li ñu wax audio yuutu bi ñëpp a koy dégg ñu jël ko teg ko ci seen kaw te yéen a tegoon dara ci kaw nit loolu wëlbati ko ci seen kaw ngeen kii dafa bon ngeen kii dafa viol ngeen ne kii dafa def lii léegi loola ngeen tegoon si boppam pour aj ko pour àtte ko ndekete yoo nekkul ci moom kon affaire bi kon dafa war a nekkaat contraire bu dee dëkk bu fenn mel ni ñu teg ko ci kaw nit dëkk bi tàkk ay problème am maanaam ngeen lijjanti loolu beneen bi tamit ma ñëw tuuti ci Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall li ma lay xamal mooy maanaam sa jooytu yi ngay jooytu ni ci Sénégal kay ànd ak ñun xeex moo gën sa yi ngay def yow li nga war a wax mooy nervi yi dangeen ngeen gaaw fàtte yee Sénégal li ngeen war a jooy li nga xam ne moom ngeen war a xeex dëggantaan mooy nervi nervi yi nga xam ne duñ ay gendarmerie du ay dara ay jamono ay bandi ñu génne leen ñuy dóor ay nit am ay vidéo yoo xam ne président Macky Sall mi ci ginnaaw ay ñoo xam ne seen kanam yi dafa ñaasu ay ñoo xam ne ay bandi la ñu ñëw fay leen pour lan fay leen rek pour askan woo xam ni fàtte moo gaaw si ñoom mais wallaahi kuy fàttalitu xool dikk bi ni mu demee xool jaar-jaar yi fi am day séexlu Sénégal da lay séexlu yow Macky yow sunu président ndax lii waru la ndax tey sa discours tooy dafa waroon doon jàmmi réew mi sa discours tey dafa waroon doon da nga war a dugg nga wax nga ne yow yaa jiite kon ban responsabilité nga yor responsabilité boo xam dëkk bi day am yow bu la falee façon njiit nga ban façon ban responsabilité nga gàddu ci Sénégal kon bu fekkee yaw lii xa yaa ko gën a xam mais bu doon xamoo ko laa la wax bu doon même bu doon xamoo ko yëgoo ko Macky yow dan dan la war a folli nga xam ni sa bopp bi àttanul réew àttanul sa kër wallahi wallahi même bu doon Macky Sall xamul dara ci lu xew Sénégal xamul affaire Adji Sarr yëgul gendarmerie yi dóoraate kenn te kenn du ko yëg yëgul ñu ni tëj bu doon xamul ci dara dara laa nañ waxante dëgg ndax njiit dafa diis njiit boo koy jiite boo àttanul am réew mënoo lijjanti am réew la fa nekk la fa yëg mënoo ko xam kooku ma toog njiit rawatina nag ba nga ci nekkee complot nañ waxante dëgg sama gars yi seen njiit yi weq sànni fële ñu jóg fi mooy mooy waxi dëgg mais seen discours yi amul benn njariñ jóguñu amuñu luñ wax moo tax duñ leen wax lenn du ay France olof ndax problème bi mooy bu ñu la waxee olof da naan kii kan la yab li am ci dëkk bi wala ban dëkk lay wax bu la waxee ay bonnes conditions defar dëkk dëkk bi kii affaire yooyu da nga naan kii kan la yab moo tax nan la lay waxee dañoo rus amuñu olof yu ñu la mën a wax ndax li ñuy wax jubut lu mu gën a lëndëm gën mën a kii rek ñu wax ba génn rek ñu xam ne benn président génn na rek jour 31 décembre mu génn wax genre génn yooyu leen génn mais génnuñu pour amul lu fi président mën a wax lu sax fi ñi wallaahi amul lu fi dangaa cóol Macky dañ waxante dëgg dangaa cóol mënoo jiite réew mënoo jiite quartier yow kër sax waruñu ko jiital kër kër waxuma la sax kër sàkkantuma ak am réew am réew nga jiite ko ak quatorze gone moor ŋaangoo ci ñett boo amoon lenn jël seeni xam na ni musul wax si jamono ji fukki gone ak ñeent maanaam àdduna bi seen kii dañuy xool bu surtout bu ñu gisee lu doy waar loo xam ni xamuñu ko ci àdduna 31 décembre jot na ñu xool ci monde bi yëpp ñi ay pédale ñi di sànni surtout ñi nga xam ne seen dëkk am na fitna tamit ñu xool tamit ñoom nan lañ koy dundee mais li nu miin ci ay 31 ay pédale ay affaire kii yi xale ya ree mais ñu gis ñuy tëgg kii dana doy waar ci àdduna bi dinañ ne waa Sénégal dafa xew ba 31 décembre. maanaam ñu ñëw jël ay palaat di tëgg ki ay kii di tëgg lan moo xew maanaam lii pour loolu la pour léegi nag àdduna bi mën a xam. incha allahu rabbi ñun ñu ngi dugg ci deux mille vingt vingt euh, <laughs> deux mille vingt trois man Medoune Diop bi xaq pour di leen wax mu leer naa naññi wallaahi faruma fenn ci dëgg laa far dama bëgg loolu ngeen xam ko wallaahi Sénégal li ñu fi metti yépp incha allahu rabbi dinañ continuer di ko xeex patriotes yi sax dañu am patriotes yu ma bañ ay patriotes yoo xam ne même ay groupe fii bokk nañ ko fi ñu bokk ko di wax ci réew mi di wax lu ci njariñal réew mi mais sax ñoom dan maa contre dan maa bañ ndax lan mooy li nu gëm gëmoo ko fi nu teg seen sëriñ si teguñu teguma ko ba sëriñ si ni yàllaal man du ma yàllaal benn sëriñ yàlla laay jaamu yàlla mooy buur dëkk bii nag fekk tamit seen jikko ju bon jii seen jikko ju yées jii yàlla mooy may combat bi seytaan yi gën a xeexal leer ak dëgg moom mooy li nga xam ne moo koy xeex man ci dëgg boobu laa tegu da ngeen maa bañ da ma maa contre yéen patriote sénégal yéen activiste naa fekke yéen ñëpp barke alxuraan man mii di jóg wataas bi daal wallaahi wala azim du lenn du lenn lu dul lan lu dul dëggu du lenn lu dul nekk benn saay-saay benn kàccoor muccul ci samay wax wara bir kaaba leen ma wax daa leen ma ana mën nañ ma baaba jan mën nañ ma bañ a déglu tey mais suba di ngeen toog di ko dégluwaat loolu awma ci werante li tax ngeen bañ ma ay setan ngeen li tax ngeen bañ ma ay tarixa rek a tax ngeen bañ ma yéen ñi seen tarixa yi ñaan ba toll foo xamante ni si képp kuy liggéey rek dangay am contrat fi ngay liggéeyee ñu defal la contrat pour boo demee ba nekk mag ngay jël pension yi ñu koy ñaan yàlla Sénégal dem egg foofu mais du ci jamono ji la fay egg du benn président bu ko fi mën a eggal yéen peuple bi yéen ko fa mën a eggal ngeen bàyyi ci xel partagé leen yaag partage sot la bokk léegi liggéeyu neera boobu nu may wax noonu pour nit ñu defal la contrat fi ngay mu nekk ci ay këyit muy fay ay taxi ñu xam li muy fay taxi loolu noonu dafa am solo cim réew mooy jëmale kanam réew mooy tax ngeen defar tal yaag yooyu te loolu noonu seen sëriñ si ñoom ñooy sàcc yoo xamante ni si ñooy bayloo nit duñ ko fay ndax dama see jaar ma xam ko ñu nax ma ñu tafu sama portefeuille sama portefeuille bi ñu tafu ma ñëw ne la ah doomu yaay moytul ci ngay jaani dafay tafu sa portefeuille yéen doomu yaay ngeen ànd ak seen loolu day taadee dëkk loolu dëkk bu ko fi def fii dañ lay tëj ndax li tax ñu lay tëj mooy baaxul jariñul askan sëriñ bu fiy liggéey looti nit wala ngay bay loo da nga ko war a defar contrat loolu mooy yëfi nit Sénégal egg dugoo leen fa te doo leen fa gaaw a egg bu suñu génération bii kuy bay tool say bay say tool dañ ci war a def kii ngay fay ay taxi mais loolu kan moo ñemee ñëw fii tey ci muy Sonko muy kum mënta doon sëriñ si dañuy dañ leen day def contrat seen kii bi amatul bayal ngir sëñ Touba amatul bayal nit ngir Alaaji Maalik amatul bayal booy bayal nit da nga koy bayal nga koy fay ndax sëriñ Touba dee na fekk fekku ko fi ay duuli kase la sëñ Touba dee na Maodo dee na Baye Niass kenn bàyyiwul sëñ seen bopp gëm seen i njaboot gëm seen bopp tey dimbali koo yàlla bu leen bu ngeen amee xéewal xéewal gi ngeen am yow mi ne jullit nga nga sante ko yàlla borom bi subhanahu xam ne yàlla moo la may xéewal bi bul toog di sant keneen pour dul yàlla bul sant sëriñ Touba bul sant Alaaji Malick bul sant Baye Niass defalu la tus fekkente woo leen Baye Mountakha Mbacké démb nee na dëkk bii daf koy jox ay kii nu tuddati daf koy jox pour ki ngeen xam ne sàcc la sax yéen ngi yéen wax ni ma ndal ngeen wax ci moom ba bàyyi nee na kooku la dénk dëkk bi dénkatu ko sëñ Touba de ak gendarmerie taalibe Babacar Si bi kenn nga woon ko ko doon xeex taalibe sëñ Mbay Si Mansour bi yow taalibe sëñ Mountakha bi kenn nga woon ci ko koy xeex yéen taalibe ci kenn ngeen ci ngeen xeex mais ah, ndax yéen rek a war a jox jàmm dëkk bi bi ndax yéen rek a war a jox jàmm maanaam nit da nga yéene dëkk ndax dafa bokk ci ak mbaax nit ki nga bëgg say mbokk nga bëgg sa dëkk nga bëgg sam réew foofu rek moo tax ngeen di xeex de mais ba ngeen koy wax bari nee na dangeen ngeen réew de ñu bari nangu leen déglu de mais tey sëñ May Sy Mansour dem na ba nangoo dëggal ne wax na dëgg Macky Sall tey xanaa tey si loolu démb la woon waroon bàyyi say doom ñoom ñoo xeex wax dëgg Macky Sall dem ba affaire bi daj fàng leer naññi si nga soo sookee wax ba nga waree génn yàgg na ba nga waree wax yàgg na lan la Medoune Diop watawaasaw bi xàq ñu mel ni man ji ji wallahi ay combat ñoo xam ne liñ apporté ci combat Sénégal lu rëy ñëw tudd sëriñ si ñoom dañ cee boole sëriñ si yéen dafa am foo leen ko yamale loolu ñuy wax noonu tey moo génne sëñ Bay Si Mansour mën a toog wax man ak ñu mel ni man ak ñi nga xam ne dëgg-dëgg seen xeex amul fu ñuy bañ amul fu ñu bàyyi tey activiste tey bu fi ñëw muy ñoom mu laa moo ku ci mënta doon ak ku ci mënta doon kañ ngeen tàmbale wax ci sëriñ si ndax fi mu toll nii fan yi yéen a ngi laal sëriñ si de doonte actualité am na ak amul mais da ngeen di xool côté boo xam da ngeen laal sëriñ si kañ ngeen ko tàmbalee laal nan wax kon xeex bi kon dëgg-dëgg dëgg dee leen xàmme tamit ñi nga xam ne ñoo xam ne dëgg-dëgg ñi Sénégal moo leen di teel du ay ndax xasta nga ci am saaga ndey nga ci am mooy dëkk bi bëgguñu dëkk dëkk bi ni mu ràbboo ci yéen taalibe mooy li ma leen wax loolu la leen yàlla may Macky Sall bëggul dëgg Pape Alé Niang dafa wax dëgg Macky Sall tëj benn combat boobu ay bëggee ñu toog fii ci jamono Idrissa Seck ak ñeneen ak ñeneen Mor Mbaye kenn ak keneen di génn ma ñëw naan leen kii day politique bu ngeen demee ba Mor Mbaye jaratul dara ci Sénégal ngeen xam ne kii man bokk naa ci te moo ne da ngeen di foog ni ci affaire kuréelu mu murit laay waxee kuréelu tijaan fekk kii tijaan yitteelu ko mu murit yitteelu ko sëñ Touba yitteelu ko poosam moo ko yitteel ñu leen di nax di leen fooyee jaaral ko ci ay sëñ Touba wala jaaral ko ci Alaaji Maalik nit ñi di wax ak yéen leen mënta toog xam ngeen xeex commencement <laughs> affaire bi du tay de tey dafa tey dafa yolom danoo gas fekk dëkk bi <laughs> xaaxaal yeeg dëj yëpp ñu sànni ko fële mu dem ba nooy ko mu nee nga wax sëriñ mais ba muy metti dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne ku am ñu saaga sa ndey dinde ay fan te dinañ ci continuer may wax ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàpp ci combat bi dama ne ngeen sérieux seen liggéey bi foofu la Cheikh Bara Ndiaye nga sérieux seen liggéey bi nice na yàgg naa toog la mais instant yi ma gis ngay doxalee ni foofu la mais na yam bu leen jël Ousmane Sonko yéen ñëpp képp koy wax ngeen jël Ousmane Sonko pour jëndee ko pour seen bopp benn suba ngeen wor dëkk bi dafa bëri workat yéen yëpp laay wa képp ku ne booy bu leen toog di gëm doomu aadama même Sonko mii laa la wax waaye sa lii métti na mais li ngay yëg yaa koy yëg ku ci nekk na nga xam la ngay yëg ku ca sa hôpital matut yaa koy yëg ku toog bëgg a bay noo bay yaa koy yëg ku bëgg a fay sa dàng job sa kër yaa koy yëg loolu ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax ngeen xeex lu am fulla xeex lu am kenn toog di jaay sa bopp ñun gëmuñu la li ñu gëm muy Sénégal nafiq la dëkk fenkat la dëkk tappalekat la moo tax yàlla di leen toroxal sa waay ibrahima lii mooy li am man ba ci Cheikh Baara Ndiaye seen dëkk bi dañuy dañuy dañuy dañuy aj ay nit wallahi talaahi da ngay gis nit di wax surtout boo laalee sëriñ si sëriñ si moom képp ku koy laal seen tappale yi nek moom dañuy saga sa ndey di la bañ man ay nit saga nan ma ay ndey la laal ñu bokk benn groupe buñ ko disee ma ko disee buñ waxee ma wax ci njëriñal Sénégal mboq sa dugub sa ñu may dugg sama privé bu ma tuddee ay sëriñ rek ñu commencé di ma dima ma def naa ko fi ay live de wax ci mu yaatu ma def ci wallaahi Cheikh Bara wax ci wax yoon sama wax moo gën a leer samay live moo gën a leer nga gis gars yi partagé Cheikh Bara Ndiaye partagé ko ci wax jooju kii moo am xam-xam kii moo war a kii est-ce que déggewu ko seen fii kalan man waxuma pour ay tour de tour safuma wax pour ay darajat safuma wax ay wax naa leen wax xam naa fu nit di jaar am vie xabar ci alxuraan man su ma doon cii sax dama dul sax lekk xaalis mën naa combat sama combat boo xamante ni billaahi du ma lekk xaalis nit te damay am xaalis mën naa dugg ci soo bis bi te dëgg rek laay wax dugg ci làmb ji dem xaritoog ñoom Balla Gaye mën naa ko mën naa ko dem dugg ci kii bi ñëw wax comme classe ñoom aadamoo ni ñu koy defee ma def ko ci defen bu gën a bu set te day jariñ te man maa taamu combat bu xotteeku bii maa taamu combat bu métti bii ndax dëkk bi ay duul moo ko moo ko tabax te man du ma égoïste pour lijjanti sama bopp rek di bàyyi sama askan di dee comme te yàlla may na ma làmb làmmiñ wii comme ni ma koy waxee yàlla day jox nit xéwal ci am alal am lii maanaam ku ci nekk fa nga mais man sama làmmiñ bi dama ci préfère ma séddoo ko ak sama waa dëkk lépp loo xam ne luy may xaalis la yàlla bu mu ci ay réseaux sociaux ay wax yàlla na yàlla def mu doon lu may ñaq soxla ci dërëm maa ngi sama seenu YouTube billaahi wallaahi monétisé wu ma ko wallaahi suma wallaahi monétisé wu ma ko boo xam ne maag ay nit ñu ñoo toog xalaat ko billaahi monétisé wu ma ko moo doon bu am doole monétisé wu ma ko du benn dërëm bu ci génn ndax damaa bugguma bugguma lekk ci sama ci sama wax yàlla na doon loo xam dama koy ñaq ci kii mais soxla ma ci tus su ma ko soxla woon am ko ci dëgg neexul sama gars yi ngeen jël ngeen utiliser amul benn activiste nag bu fi taxaw ci Sénégal cat ba cat ma noonu la mu leer lu dul fenkat ay ñoom bëgg bàyyeeg ay comme gars nga xam ni maanaam am mais képp kuy kii mu laa morgan noonoo la dama laa bëgg ak kenn ton noonoo ma la amul kenn ku ma noonoo su may wax nag dëgg maanaam da ngay wax mais Sénégal duñ ràññee ndax mën na ne eh Medun Diop de Mollah Morgun de la doon daal daal ba Mollah Morgun mi ngi xeex xeex bu am solo mi ngi xeex xeex bu rafet xeexu patriote Kayskov mi ngi xeex xeexu patriote ñi ma gis yépp ñuy xeex gàcce nga laama bu dul woon yéen làmbaay ñaaw ndax seen wax yi ngeen di wax seen kii yi ngeen di wax moo tax tey yéen a Ousmane Sonko ba li ngeen di wax du ay gendarmerie du waa Pastef du kenn ku ko dimbali Ousmane Sonko yéen a ko dimbali ci jàppam bi yéen a kaa ay saar bi yéen a ci xeex ba mu toll fii moo tax moom gor la moo tax ba mu ñëwee mu sant activiste kon yéen ñëpp ay jàmbaar ngeen mais teewut nit bu di ànd watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabr man mii melu jóg bu ngeen gisee pepp duul ci man wala ngeen gis man doxalin wam day yàq combat maa wa rabbil kaaba ma maa ngi koy sàkk ci yéen ngeen wax ma ngeen renoncer ma ndax damaa bëgg a baax ngeen ne ma ah Medoune sa wax ji ne fii normal sa li ngay def nii ay fen la sa li ngay def nii day tardé Sénégal billahi wallahi jazakumullah xayran daal la ciy tegal bu dee ak réewande ak xasteeg yooyu xam ni maanaam ku woddoo làmmiñ ku noppee rafle gënoo ma rëy làmmiñ dàqoo ma wax taman dëgg laa lay wax boo ma waxee say fen laay décorté mi la sa yi ngay wax da ngay fen lii moo tax nga wax ko fi nga ko teg fi nga ko moo tax ku may duut baaraam yi na nga xam ci li may duut baaraam kenn ñee mooma duut baaraam cat ba cat kon boog li may wax nii dama koy wax pour yéen yéen ñëpp laa bëgg Ousmane Tounkara da nga maa neex bàyyi kii moom yàlla na ko yàlla sàmm wallahi Baye Bass suñu papa ju am yitte am yëg ku bëgg Sénégal di xeexal Euh, sunu su euh, di xeexal Sénégal Baye Ousmane Dramé yàlla ko yàlla sàmm am na mag yu nekk ci suuf fii di xeex xeex yu am solo xeex yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ leen war a déglu waaye mag yooyu du leen sax déglu doo leen sax xoromal ndax bëggoo leen dëgg bëggoo leen waxi nit noonoo ma ci kenn activiste buy wax dëgg di xeex dëgg même bu ma la xamul sax noonoo ma la ti volet benn képp koo xam da ngay fen di saraxe askan bugguma la bu ma naa feeq bëgg bu ma a naafeq mooy ku xam ba pare di dëggatee la nga xam xam ba pare naroo fas yéene wu baax koo koy naafeq mais nit ku dëggu moom bëgg Sénégal gu baax moom boo xamee di nga xoolaat wax ji xool xool lay jariñ réew mi moo tax ab naafeq mënu ma njariñ subhanaka allahuma xam bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk